maam Cheikh Sikar di kenn ci jegeñaale yi soxna Aida Diallo moom gendarmerie moo ko teg loxo ginnaaw ba mu yëkkatee ay wax yu ñàkki teggin jëmale ko ci xalif général des mourides ci ab enregistrement audio. waaw li nga wax. li nga wax dëgg la noonu la demee. waaye saa waay ay xale général des mourides ak yooyu ay ay rek. waaye xam nga ni. waaye di weesuwul. nga génn télé di waxee nii ngay waxee. même bu dul woon dara. même bu fekkutoon ne soxna Aida. soxna ab sëñ Béthio la. ak li sëñ Béthio def ci yoonu murit ak fi sëñ Béthio jaar ak Serigne Saliou kooko soxnaam génn ci télé def li mu def ci màggal ñëpp teg seen bët bu dul loolu sax waaye taalibe bi Serigne Touba ki jëbbalu yaakaar Serigne tubaa àddina ak àllaaxira yow kooku même bu rendi woon nit même bu rendi woon nit aju gim aju ci Serigne Touba war naa tax nga jox ko ci respecté ko waaye ay nañ ko sànni ci sën bi xam nga waxu soxor waxu wayadi waxu iñaan weesu loolu ak waxu ñàkk xam-xam yow nit nga xam ne sunu borom rek ci alxuraan bu fekkee jàng na te mu ngi jëfee sunu borom li mu wax ci alxuraan lépp moo ma gënal lu ma sàkk nga jël doomu aadama ak quel que soit lu mu mënti def nga ne nañ ko sànni ci mbalit waxu dof waxu woye di weesuwul loolu eh, eh, sawaay ñii duñ dara barki Serigne Touba maa la ko wax ñii dañ fay nekk à la li taxoon a sulli seen secret ne mooy akub taalibe ñun ñii la sëñ Touba fonk waaye akub mbokk amu fa sëñ Fallou mi leen gën a foor for ñoom gën leen gën leen fuuf tey dëgg dëgg doomi Serigne Touba ci niñ ko mën a waxee daa jaay njurlem dindee ko taalibe ñoom nag buñ fi nekkee xol palp doomu soxna soxor ak fiiraange doon wax naan sëñ Béthio bokkul ci yoon wi ab taalibe képp la ab géwél la kooku bu mu nee tey dëddu bàyyi fi ab sampam mu def loo xam ne ñoom seen giiru dund boo dajalee seen seen juróom-ñeen fukki morom ñu dajalee seen ug jëf luñ xaaju sampub sëñ Béthio lu mu def aw fiiraange dugg ak soxor ak iñaan looloo ko la ki li mu da génn nañ ci moom waaye dee ko dab iñaan ndax lim ni doon waxee da xam ne lii kii di wax nii ci xol bi la tibbee kiñaanam te murid du iñaan murid du soxor moom tey moo yell ci sën bi moom moo yell ci mbalit ndax moo wàcc àndam ngir lan iñaan te da koo tegul fen munul dut baaraam ne soxna Adja lii la def wala lii la wax amul ay dégg naa seetaan naa yow montage yi dëkk bi yow ngay woyee di da ngaa xam luy montage gars yi ay technologie lu ne mën nañ koo génne mën ngaa tey naan yow lii laa gis wala lii xam dara xamuñu tus lu iñaan doon di diir sëñ Béthio Mbacke ñooñu ñëpp sëñ Béthio làq na leen barki Serigne Touba sampam bii sampam bii nag moo gën a garaaw ku ko fi nara gund nar ko fay sonal da nga fi jógee léegi te it jógin bu ñaaw ñëpp a lay weddi laal nga fiy jógee na laaj rek na laaj ñi ko fi doon def la leer moom waxuma leen ay gël tàppe yooyu moom waxuma seen wax ñax ñooñu bañ toroxee du tey ñooñu sëñ Béthio da leen a xotti keroog ba mu leen xottee def leen porte parole am xotti leen keroog la leen xotti àddina xotti leen alaxira ñooñu benn waaye ngi doon gént ne sëñ Béthio nee na xaadim cuun dese woon ci fi ko ñaata nga dese mu ne ko trois mille cinq cinq cent mu ne ko indi la desoon ci cëri de la ko rocc la rocc ne ko indi daal di koy téye nee na ñoom deseetuñu dara te boo leen xoolee xam ne politique bi yoonu murid di def ngir fay soxna si ci ñoom la ko bëgg a jaarale ndax ñoom dañoo jàpp ne yoonu murid ñoom dañoo xam ne ñii posé dara te bu ñu fayee soxna si ñoom fay leen day yomb waaye ker ker bu yàlla keral nga ne da nga koy suul wallaay da nga suulu ci suuf yow mu ne ko jàll nga ba noppi yow wéel jàll nga ba noppi maa ko wax kookee waxam la gëm ñun li mat a xam ak li mat a li mat a ci li ñu a ne ñun même bu ñu dugaloon ci biir néeg du ñu tere doon jantaakoon ñun xam xam nañ ko pare te kenn dootuñu takk saret te dootuñu doon wayee di ba faw dañ yee ba ñuy xippi suñuy bët ba jóg taxaw ba ndékki jël sees toog kooku mënatoo ko wax loolu kuy nelaw waxu kuy nelaw ndax moom yeewu a ba noppi liñ bëgg mooy dañuy takk saret ñuy nërëm nam ku ko nam ma def dee dem safaraa ko gën mënatu la ne ku bëgg taalibi ne dama wuti ji ko bu fekkee nag mënuloo am li sëñ Béthio am da ngay nangu ay dogal yàlla xam ni sëñ Béthio mooy Serigne Touba moom moom yoonu murit ndax mooy Serigne Saliou te tey moo suttiku ci si soxna Aida ba fees dal kenn mënu koo teree jaar ku ko bëgg a teree jàll ku ne dana da nga doon ndaraan akub ñax ni ndaraan di wolee ñax buy jaar ci kawam noonu la la soxna ay def jiggi la jàll barki Serigne Touba maa ko wax ah nañ dem rek. ñu gën ko xam ci turu Cheikh Ndiaye maam Cheikh Sikar weddi na ba mu set wecc kàddu yi nga xamante ni moom lañ koy jiiñ. bu taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp ñëpp jiital ci nuyo bi ak siyaar bi suñu xalif bu tedd bi di sëñ Muntaxa di Serigne Touba ci ñun. ma wax ji nag dara waralu ko lu dul weddi ay wax yu nu ma sosal ne maa ko wax. ñoo jël samay image taf ci ay wax yu ñaaw jëmale ko ci yoonu samay wax la nag ne du samay wax du ci yem waaye jàpp naa ne ki ko def sax du ab murit ndax yaakaaruma ni ab murit dina def lu ni mel loolu yaakaaruma képp koo xam ne nag ab murit nga yaakaar Serigne Touba te xëy na njuum te jàppale ci subaak léegi appel yi may jot ñu may saagaak lu leen duma koy wax di ma menacé ñooñu ñëpp jéggal naa leen ndax xam naa ne ci ñàkk xam rek lañu ko defee ak xër ci Serigne Touba te noonu rek la war a demee maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi wax aduna sëpp di leen wax jooju day wax yàqkat la du samay wax te ñun murit yi nan leen gën a teewlu na te te te duñu ay murit di ay yàqkat daa bari te bëgg noo féewale jërë jëfati sëriñ ba jërë jëfaat sëriñ ba sëriñ Muntaxa yàlla na fi yàgg lool te jërë jëfaat sëriñ ginnaaw weddi tuumaam yi mu mel nii rek nettoyage wu téléphone portable la moo ko sànk ndax bu ñu sukkandikoo ci gendarme yi ay heure rek laataa ñu koy jàpp dafa effacer message whatsapp yi nekkoon ci téléphone am yépp waaye bi ko gendarme yi laajee lan moo waral mu supprimer message whatsapp yëpp kii di maam Cheikh kër amul woon lenn lum leen tontu loolu tax sax enquêteurs yi daal di koy defeere jëbbal ko procureur. waaye ba léegi taxul mu nangu ni moom moo wax kàddu yu ñagas yi jëmale ko ci xalif général des mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké Cheikh Ndiaye ñu gën ko xam ci Mame Cheikh Sikar placé nañ ko garde à vue moom luñ koy toppee mooy yëkkati wax ju ñaaw jëmale ko ci kilifa diine jaarale ko ci ay réseaux sociaux